technicien nee et ki yor poursuite bi mu public bi légui nak ki ñi au nom des alliés ñëpp doon ko Ousmane Sonko muy suñu tata Aïda mbott tata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 y a plus de marche affaire bi jeex na jeexal ngeen ko marche amatul marche amatul terminé dama ni Ousmane Sonko nanguwul ku mës wax Pastef nanguwul ku mës wax coalition le peuple du Sénégal lay waxal lu mu wax ne lu ñu def boolewuñ ci peuple bi du am Ousmane peuple bi moo lay njukkal peuple bi nga gëm peuple bee tax nga sacrifié wu bee tax nga daj li ngay daj peuple bi moo lay fay peuple bee la gëm yow peuple bi moo la gëm peuple Sénégal kenn dootu leen nax peuple Sénégal kenn dootu ko nax peuple bi dem ba xam ne yow yaa leen ko jaral ñu jox la président tey majorité nga soxla dinañ la jox majorité fii allié amu fi ñépp Pastef lañu allié yi nga xam ne ñoo tënku ci jamaay président dafay yokku li nekk ci liste d'attente bi xaw ma nañu toll ñépp a ñëw bëgg ànd ak yow ñépp ñëw bëgg laa soutenir ñépp la gëm ndax Sénégal lañu gëm Sénégal lañu gëm te ya gëm Sénégal waa Sénégal ñu and ak yow nga jox ñu nak liste bo xamni am nañ ci fierté kan mo nekk ci sa liste men fay jigen ñangi ngi gis seen bop ci mom Ami ja jigen ñangi ngi gis seen bop ci mom doyen Alla kan jigen ñangi seen bop ci mom wa ana borom dakaru ana sama doom borom dakaru Abbas kan mooy borom ndakaaru ndakaaru gii dafa am borom Abbas mooy borom ndakaaru man nag cent laa diggee waaye maa ngi revoir en hausse samay prétention ndax dama war réew mi te bi ma waree réew mi fu ma dem dama naan leen duma politique ndax président Diomaye ak premier ministre dañ ma ni deer amul politique waaye bu ma ñëwee ñu laaj ma Ousmane Sonko bu ma demee Nord ñu ni ma ana Ousmane bu ma demee Sud ñu ni ma ana Ousmane bu ma ñëwee Ossan ñu ni ma ana Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane. merci beaucoup. merci beaucoup Tata Aydemboch. Mbodj léegi qui dañuy le représentant de la JPS fi qui toll Nous, qui ci secrétaire général adjoint la JPS nous Saliou